bés bi de xanaa di sant yàlla ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim fas yéene ko yeggale ci alhamdulilahi rabil alamina di jullu ci yonente bi di sant ki nga xam ne tamitam mooy suñu sëriñ bu mag bi muy sëñ Touba ka nga xam ne lépp moom la lépp moom lañ ci mënta def tamitam lépp moom la parce que lii yëpp moom moo ko jëf léegi fu mu toll nii ñun ñu ngi wuyoo yoonu murit ci barke seigne fallu yalla nañ ci dugg ci bismillahir rahman genn ci alhamdullilah rabbi ci barke seigne fallu ñin mom wa keur seigne fallu lañu mom bo waxe daaru keur yaat ba mom seigne fallu motax ñuy wax waye bés bi nak ñu ngi koy sante yàlla parce que nekk na bés bo xamne ñepp xana xanaa képp kuy julli dekk képp kuy naan asxadu an la ilaha illallah la taamu nga ko ci taam nga ko pour am ko wa kon bok ñu ngi koy sante yalla bu baax baax li moy 6e fois wa ñu koy def ascension la wa parce que mën naa la ne euh, muy tout tànk yi ñoom ñoo njëkk programme ne maanaam ñi lii lañ bëgg ñëw tamitam wax ko ña nga xam ne ñooy kilifa ji kilifa yi tamitam wax dëgg fa yàlla rafetlu ko lool waa ñu jàpp ci tamitam ñu am ca yéene lool moo waral nag ñu continuer ba war a yegg si fii muy juróom benn yoon suñu sañoon nag ñu nekk fi di def di def di def ñuy dem ba mënatuñu nag suñuy doom di ko def suñuy set di ko def suñuy setti settaat di ko def nga xam ne fu ñu mënta toll rek nga ñu xam ne rek àdduna gi rek nekkul mujj ñun ñëpp ñun dañuy rem waa nga xam ne fu ñu mënta nekk tamit tamit yool bi ñëpp ñun ñoo koy bokk ak ñoom ñun loolu la ñuy ñaan yàlla rek. non préparation bi dina metti du metti parce que nit ki moom pour man boo amee yéene def dara dina metti ci yow du metti ci yow waa parce que lépp nganeel nga koy def rek parce que boo ko defee nganeel rek lu mu metti metti doo yëg coono ko pour man. wa wa waa Ngoundiane yeen ñepp ma ngi leen di laasal ci jang yi kep ko xamne rek yaa ngi ngun Ngoundiane waxuma ciangaay rek ñu ngun Ngoundiane yëpp fi ba jaar ngeen jàppale ñu ci bes bi nga xamne ñu ngi koy def muy bes bu delu su bu tabaski bi fu waay mënta nek rek ñu ngi koy def sax année te fas yéene ñu bouger benn mètre nak ñepp nañ ñew duñu ci walu duñu ci jappalé parce ku ci ñew nak ah, sa bop nga ñewal nak defalo kenn sa bop nga fi nekkal mom ngay wa senegal waa alaykum wa aduna adduna alaykum wa mondo antie te yaakaar naa ñu ngi fi ci gox bi nga xamne day wuyo daru ke ya doon Family mu nekk gox bu ndaw ak dox gox bu ndawul parce que yaakaar naa lu ñu organiser ni gox bi ndaw la way jef ju ndawul kon ñu ngi wo ñep di jaajeufal ñep muy mag muy ndaw di wo wa aduna wa senegal surtout wa ñu ngi leen di woo ci bés bi nga xam dañ koy digmal chaque année bésu tabaski bu delsee ci lañ koy def fii ci gox bu wuyoo daaru Kër Yadone di jaajëfal ñëpp nag di ñaax jigéen ñi di ñaax góor ñi di ñaax mag ñi di ñaax paa yi ak maire yi surtout parce que lii nii murit ñëpp a ci jàpp ñëpp a ci jàpp amul mag amul ndaw tey boo fi ñëwee da ngay yërem gars yi sax bés bi ku ne da koy def comme comme bésam te yaakaar naa loolu bu ñu ganee jàppe noonu chaque année day ala daw me parce que wax dëgg la lii day yoonu murit day loo xamante ne ne ñun ndaw ñi dañ koy sant yàlla parce que mënoon nañ nekk ci leneen mais tey dañu dajale suñu astut bu ñu demee chaque année ñu toog fii ñoo xam ne yàlla daa defoon ñu ñu bokk to bokk to fekkeetuñu ñu defal leen wàcc kaam yi ñaanal leen def cante def ay bernde yaakaar naa daal ci kaw sa kanam daal eh, tik ma yor mat reenu askan reeno fa ngeen reeden bayal nen jumaani satna cotami waxtu juróom kon jigam yakana gelemange ja moyide kam sekana bome ele mbaɗo fof mi waɗɗangan da ko o waxtan mi waxtan dafa ɗan a jiñange a wenlem haali mbit atolem o lemde refna noon kon in fof yoɓogo faap jiyam yakana gennange a ref paaxu a waxtanga fo xaldina ka na nuun ta lem na nuun mi de jigam de cante sino borom ndax it sëñ Tuubaa yaakaar yu in fop o te tantane tantane sëñ Tuubaa it tantane tantane rasulullah tantane o ten awa afdalu xalqi lahi kullihim ku rooga bin o te moƴan afsar ko ndem kuma tout sëñ Tuubaa le waaye nag yonante na len ba sunu borom kon waxu commencé ta ñaan taga fopti ci ñaan aya mi ñaama am na rooga deɓ deɓ din ngeeke de Njaay Joon taxawaynaa anon de in waajurge de i mbegoo de woyof Aliou Hane foogna ndokuwale wiin moom geeke de nja njaan go ndigante den wiin caaci nam kay fo'oogu warno wiin xalam Abdou Hane remna tin it wa maysa yit gaaga lem ku refna teƥ te i lem yeke no Mbaye Hane a fog ma gis nana xaye geeke de roog o nan fogta caan ga war de waago fog kene pencin te roog de ngata ndaa a refan ka jable jaman wala takora ko fop kawdum ba ko lengole sunu borom bay ban takale ko te yit yonantem ittima ko wa eh, mbolo katan kon hoyonum ni bolo amin roka ji tax jaba wa ko ji to ngora lalin islam lalin foga lalin kon dara de yakko assalamu alaikum wa rahmatullah mun fogo yit inwe hirwa anun siaranun tuasa na anun hak, ikam tuwasun fa anun hak bete dah kini fagi e balnain ruha bab modu wa tebu um. wa biu, de e balyu roga dayra fegi programme hay anning ne el ajiyana anu no no buta garto nga o waga o waga o jem ndax geen nan ma meeke o waagangee so wara waag o jigmeew reefanoon a yoona teen lem yo nu diini l'islam de i yo meeke to den hooya in to nde i yaakaar yo foogam tari haɗik wala tadik reero me kono a ɗaɗale sin tuuba o xooyonga de o teele mo ngari ka na a to fogam gari ka annaha adiana o lemba xaƴim taago a ah, fogam waag ke watit na kon ni gen lemna a ah, i nano gen lemna a ah, felang roog kuy ɓateer na nu gen lemna i wañkeero de tig wa murit noo ngi lay ziar bu eh, di nuyu mboolem waa Ngunjaan ahlu Ngunjaan gépp ci góor ak ci jigéen waaye nooy nuyu bu baax waa càngaay rawatina waa daaru eh, noo ngi leen di nuyu ci góor ak ci jigéen ñëpp wax dëgg yàlla ndax mel na ni bés bi bañ ko tàmbalee taxawal ak léegi ñun lañ ko ñun lañ ko àndal te du wax dëgg ñu japp nu japp go xamne yem nañu sax nak wax dëgg yàlla jàpp gu ñu yem ndax manam jangkat ding ko jël ngir aw tour jangkat it ding ko jël xeyna ngir ak mana jangam waye ñom dañ ñoo japp rek ngir señ ak xassibe bes bi it ci bes yi ñu gëna fonk ci bes yi ñuy jang yépp ndax nak numay numay def diw go gis rek namu la defa tax te wax deug yalla bes bi bam tambale ak léegi ñun lañ ko andal say ñu fi ñewé it ba ñibbi dañuy amaat benen ci bes bi kon lolé rek aw sas la ci ñun ak bok gi ñu bok ci biir kër bi nga xamné ne deug yalla euh bari na sax ci wa kër gi ci xalé yi ñi ñu ciy dajeel ndakaaru souvent lu ci gën a bari dañuy wax sax Abdou Faye mu mu daaru ab du fay mu kër yaatuwan la wax wax dëgg yàlla mu neex ñu lool ndax nag maanaam li sëñ moo du Moustapha waxoon rek eh, gor ganewut moroom ma lañu lay bëgg te doo yëg doo yëg kala bëgg kon no ngi len di ñaanal yalla bu baax sunu borom gana deural dëral bi te it giñ na ko ci sewul khadim werna ma ni bés bi sëñ Tuubaa rek a tax nu def ndax ñun ñi yag di taxawé ay bés xam nañ ni digënté ba corona bi jallé ak légui bés buñ ci taxawal rek pas-pas rawatina bes bo xamantene bi wax deug yalla benn kër mo koy def te mel ni amna Deku lëmm guy taxawal bes sax te bes bi du melni ni bi kon lolé dañ dañ len ci ñaanal yalla bu baax suñu borom katanal len may len tawfiq bu baax ak mbooleem ñi ngeen andal bes bi ñepp wax deug yalla man bes bi sama xol da ci sedd lol seewul khadim xamna ni même bu nekkutoon ma koy jang sax euh, def day doon lu war ci man may teew ci bés bi bokkal ak ñoom liggéey bi ndax nag man moom ni ma gëmee yëf yi rek mooy sëñ Tuubaa te it euh, waa kër Yaat Wane gépp ci góor ñi ak jigéen ñi ñëpp a ma jàpp barki Seexul Xaddim des fois nit woo la ci di wax ba da ngay mujj ndax am kersa ndax dangay xam ni lii wax jiñ ciy wax yëpp nekkul sax njàmbaar nekkul sa mën a jàng waaye jàpp giñ la jàpp ngir sëñ ak yéene ji am ci jàppale la ngir nga jëm kanam dong moo tax kon noo ngi leen di ñaan yàlla bu baax ñu yàgg di ko ànd suñu boroom yàggal leen te weral leen waaye noo ngi siyaare bu baax kilifa kër gi euh, suñu wayjur yi nekk ci kër gi ñëpp bàyyiwuñu kenn mel na ni buñ limee sax mën naa am te mu xaw a yëfi xaw a gàll góose waaye gannaaw ñëpp nu yilif ñëpp di suñuy wollëre ñëpp di suñuy xarit dañuy tànn rek maasaale waa kër gi yëpp ci nuyoo waaw mel na ni moo ne day gën a rafet sax wax dëgg yàlla ndax kër moom mel na ni ku ku wal mburu tudd dëkk kër benn kilifa lay am mel na ni buñ nee buñ nuyoo nuyoo bi buñ ko jàllalee ci kilifa ak kër gi dina dina dina maasaale ñëpp wax dëgg yàlla sant nañ leen bu baax xanaa nag ñun ñëpp nu bokk waaj ndax nag liggéeyu sëñ Tuubaa mel na ni buñ la ko rafaatalee ni yaa ko war a taxaw danga nga war a takk warta doon warta doon luy doon luy loo looy puukare woo wala looy loo lu la jëme ci sax leneen waaye da la war xiir rek ci nga takkaat sa laxasaay bu baax ba mu dëgër xam ni nag luy jot jot na te nag wax dëgg yàlla buñ sañoon saa yuñ fi ñëwee dañuy def lu raw lañ doon def doonte kàttan gi du fi nekk waaye dinañ ci def suñu kem kàttan Sëñ Tuubaa rek lañ yaakaar na yàlla na suturaal ba bés bi bokk ci bés yi gën a kawe bés bi bokk ci bés yi gën a neex ci bés yi jot a jaar yëpp ci darajey xasida yi màggul xasida yi barke Sëriñ Tuubaa ak xasida yi jëf sëñ Moodu ma buñ lu toll ni Ngunjaan yaakaar naa 15 villages buñ bootoo sa gannaawu ñu lay tudd te dàqoo ko fa dañ koy sant yàlla te Sëriñ Tuubaa kum liggéey noo dalay yenn li gën a woyof yenul la li gën a bés noonee lañ ko gënoon wax dëgg yàlla gënoon naa métti ba ñuy dem ci tund xombal yi di ko fa jàngi ca la gënoon metti ndax gisuñu woon kenn ku ko fiy def kon buñ demee tey ba fuñ ne yaasal jalaal yi suñuy rakk ñooy wax yaamun taxaal yi dañ ciy sant te it day gën a yaatu ndax xale yi ay jàmbaar lañ ñoom Aliou Faye Jibi ñing ba ci ñoom fàllu seen gaa yëpp ay jàmbaar lañ Seexul Xaddim xam na ni tey kuréel kuréel gi may àndal rek buñ demoon ba yal na bu mu am gàllankoor am ci biir njàng mi sax bu ma randoo am na ku ma dàq jàng ku ko mën a yeggal ku mel ni Samba Ndour wala keneen ci biir gaay te mel na ni loolu rek moo am solo liggéeyu Sëñ Tuubaa amut ci ci la ñuy feebare ci la ñuy wér loolu mooy li wér Seexul Xaddim xam na ni eh, yaakaar naa bu ma fàttalikoo ci gannaaw jàngi saameen Seexul Xaddim xam na ni jour boobu jël samp dem naa hôpital ñu samp ma perfection jël naa ñaari butéel te jour boobu moo nekkoon yaakaar naa jàngagulu jàng yi dàq jàng yooyu ci at kon sëñ day defar daal yàlla na defar lépp rek wax dëgg yàlla waaw incha allah yal nañ ci yàlla yóbboog jàmm iftax liyal yawma bil muxtaari sayyidina abwaaba xayra tajurru risqa ibbaana يسر جوهي لتوبا واحمني وقني asal wara faltu tibli sama iskaana yal nañ yàlla féewaleeg seytaane te boole noog Seex Bàmba fil jinaani yal nañu yàlla tibbal te maynu te boole noog Ahmadul Xaddim yal nañ yàlla defal tawféex taysiir nooroog maqaam ak sahaada barkeb xasida yi ak sëñ bi dooley xasida yi ak sëñ bi jërë ngeen jëf xam ne ñoom ñooy topp Légane TV di leen gërëm bu baax ci ni nga xamante noonu ngeen teewee fii pour couvrir suñu événement euh, di gërëm waa daayira bi waaye di gërëm surtout ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñuy parrain xam ne ñoom la ñu dara jaale bés bi ku ci mel ni sunu nijaay Daouda Ndour dëkk Samel waaye sunu rak sunu xarit muy suñ Dame Fall eh, dëkk Gànjool te nekk xale bu bu am yitte xale bu am jom xale bu mën a def teraanga fii ci dëkk bi waaye aussi suñuy dëkkandoor ñi nga xam ne boole nañ leen ci pare ñu muy waa Kër Caaci ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen teewaay di gërëm waa daayira bi ndax lii nga xam ne moom la def tey dafay am solo lool lool lool lool ndax euh, jàngi naam wàllu diine la waaye li gën a am solo te jàpp ci jàng yi ci lii nga xam ne moom la daayira bi initié mooy booloo gi nga xam ne moom la boole koñ bi boole ko mbokk yi ba ñëpp doon benn nga xamante ne bés bi bu teroo ñëpp ñëpp muy waa dëkk bi muy dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo waru càngaay ñëpp a fiy teew ñu waxtaan euh, di saafonte ci njekk ci teranga loolu yaakaar naa lu am am am solo moo tax xale yi nga xam ni ñoom ñoo taawu liggéey bi muy xale yi ñoom xale yi nga xam ne ñoom ñooy waa daayira bi surtout ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite liggéey bi dëgg-dëgg dañ leen di sant bu baax di leen gërëm euh, liggéey bi boo ko gisee da yaakaar ne euh, liggéeyu dëkk bi lépp la da ngay foog ne ay jàngu càngaay la wala liggéey bi xalaat yi ay mag ñoom ñoo ko xalaat waaye ay xale yu ndaw mooy ñëw bu moodu xale yoo xam ne amaguñu fanweeri at ñoom ñoo taawu liggéey bi bu liggéey bi agsi fii mu agsi kon vraiment amel nañ leen gërëm ñu ngi leen di gërëm bu baax baax di leen sant di leen gërëm yéen aussi vraiment waa Légane TV ci seen taxawaay ci euh, xew-xew bi ndax euh, am na ñoo xam ne amuñu jotug mën a teew tey amuñu chance mën a teew tey waaye li nga xam ne moom ngeen di def dina tax ba vraiment fu ñu toll ci réew mi rek ci àdduna bi daañu mën a euh, jot ci li nga xam ne moom lañuy liggéey fii kon donc ñu ngi leen di sant bu baax di gërëm jërë ngeen jëf. ci taxawaay bu rafet bi waaye di sant bu baax a baax a baax mbokk taale bi nga xam ne ñoom lañ fi dajale yëpp euh, comme ni ko imaam Ibra junjee léegi rek di ndokkeel bu baax. gan ñi nga xam ne ñoo jóge ci ay gox yu fasantikoo ñëw bokk ak ñun bés bi di leen ndokkeel bu baax buñ ci limee rek sunu magum daara di oustaz Baye Birane joob nga xam ne dina mën yobal ñu si des ak sëñ Ibrahima Ndour mi nga xam ne mm, sëñ Daawda nduur mi nga xam ne moom nañ bokk na ci pare yi euh, ak waa Kër Caaci ñee nga xam ne ñoom tam itam bokk nañ ci pare yi di leen ndokkeel bu baax ci seen taxawaay bu rafet waaye di ndokkeel ñëpp ñoo xam ne ñu ngi jóge ci yeneen gox yi fa sant ko ñëw ngir jëmal bés bi di leen ñaanal suñu borom defal leen tawféex waaye ginnaaw loolu tam itam wax dëgg comme ni nga ko waxee rek eh, liggéey bii de ñu ngi ko bii mooy sixième édition bi muy lu am solo loo xam ne xele yi ñoo toogoon bu seen xel daj lu rafet li ñu xalaat ko wax ko ji ba pare jàng jëm ci wax dëgg ñu dal ko dalin wu rafet ñu ànd ceeg ñoom ba tey gi waaye wax dëgg di ay xale yu baax xale yor xale yu bëgg la baax tax na tamit mag ñi sawar ci lool ànd ceeg ñoom euh, ñu am ci Pastef lool nag waaye nag bokk ko ànd ko ñi nga xam ne ñoom lañ ci xal penc bi yëpp ndax bu waxtu bi jotee ñoom ñëpp ñooy gën jàpp ci bés bi di leen ndokkeel bu baax a baax a baax a baax euh, li Alioune Tine jàllale léegi doy na sëkk ci jàllale waaye nag euh, xanaa ñu sof ci kàddu yu néew rek waaye di santaat bu baax a baax a baax xele yi liggéey bi nag leen waralu ko lu dul liggéeyal islaam liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax jamono dafa jaxasoo lool kon bu suñ suñ borom bu ñu defalee taw fii bu toll nii ay ndaw toog seen xel dajul lenn ñu mënoon ko def ci ay mbapat mënoon ko def ci ay sabar mënoon ko def ci ay yeneen suñ borom dafa leen taw fii seen xel daj bu baax lii ñu seen xel daj lu baax la pour ñu taxawal ko fas yéene chaque juróom-ñaareelu fan tabaski bu jotee ñu magal ko wax dëgg mbégte bu rëy lañ ci am mbégte bu rëy fierté bu rey rëy mbégte bu rey lañ ci am. kon du ñu def leen lu leen di ñaanal bu baax a baax suñu borom gan leen gën a yokkal seen taxawaay gën a wéral seen cër gën a selal xel yi bu baax a baax a baax ba ni nga xam ne noonu lañ war a liggéey suñu borom subhaanahu wa taala ci bés bu tëdd bi ñu mën ko defee ñu kay soon sant nañ leen bu baax a baax a baax gërëm nañ leen ah, di sant bu baax jigéen ñi nga xam ne tamitam am nañ ci taxaay bu rafet nga xam ne wax dëgg yàlla jigéen ñi mën góor lañ bés bu jotee tëru moom ñoom dootuñu am sago ndaara bés bi jàllul ñoom tamitam ñu biral leen cant waaye di sant bu baax sunu mag penc yi nga xam ne ñooy kilifay penc nga xam ne ñooy gérer penc bi fii wax dëgg buñ mosee buñ commencé waaj bés bi daal dootuñu am saggoon daara bés bi jàllul ñoom tamit ñu di biral cant bu baax a baax a baax ay mboolem ñoo xam ne ñoo aju ci penc bi di leen sant bu baax a baax di leen gërëm waaye tamit di sant yeneen daayira yi nga xam ne dañu jog ci ay gox yi fasantikoo sak at ñew fi fi ba ci sax dañ fi doon am gan yu tukke fo ñew fi bok ak ñun bes yi ñon tamit den ndokkeel bu baax ba sak at ñew bok ak ñun bes bi loolu tamit tam muy lu reey ci ñun nga xam wax deug yalla daa rëy lool ci ñun bo lot nañ sax di ci wax waaye xayrin alayhi wa la dalil bark sahib rat Ibra e eh, li ngeen dara jale jim ji muy ndur ki ko siyas ak ki ko xalaat juumul bésu tey ji mun Muntaxa mi fi nekkal borom Tuuba tey waa kër Seex Ibra la jox gudd bés bi tey ci lañu yendu daanaka tisbaar lañu bay kon itam bu ñu ñëwee kii bokk ci bagaas boobu nga xam ne waa kër Seex Ibra ñoo ko meññ ñoko fi sampe ci mu nek ci bir saamil kon juumu len hejna mom bari wul wax jef la man bari wul wax ma bu ngeen xamné yit ah seen guddi gi ngeen ko dara jaalel at bu jot mu dak bu paase ngeen xamné ne taxawal ngeen guddi cheikh Ibra taxawal ngeen guddi seigne touba te bobu guddi kula ci wox rek nang ca sawar moo gan mu wax la ci leneen ñun séeréer nag dañu nekk ñaari boor di tegge fii di tegge fii waaye man mi li ma dox ci àdduna ñooy xeebloo suñu bopp waaye ñi ñu yaakaar ak ñi ñooy kii xeebuñu askanu séeréer moo tax bu ma gisee koo xam ne rekk dangay daaneel séeréer rekk mbaa buggoo ko doon rek damay rus am yaakaar naa man miy wax ak yéen yéeg ab dong dong laa des la newuma la batu newuma la loocoo lu ne yéeg naa ko ci àdduna te Cheikh Ibra dong a tax ki itam Cheikh Ibra ngeen tax ngeen wax ko fi kon yal na ngeen jot njariñu Cheikh Ibra yal na ngeen jot njariñu Sëñ Tuuba ak Cheikh la ngam lii rekk a jara taxawal te it du ngeen ko riccu ngam daa nekk loo xam ne ah da nga cay jariñu danga ciy cay defaru am ku jàpp ñaar yi rek te nga jàppe leen lu sell bi ngi jariñu fii jariñu fàlle kon daw ah sas nañ la buñ la xamoon ci safaan kon duñ la wax fii waaye mën naa waat ne damaa dëkk ak yow bu sa waajuru góor la ko dama la naan na daaw ndóor gune nga waaye mag nga gune nga waaye mag la li Nduur jiite woon mu nekkal waa Saamel Nduur reefan fii yaa leen fi nekkal kon bul dox mukk loo xam ne dañ la naa acam mbaa waroo koo dox moom mi itam tànka yooyu dong la taxaw dara manqué ci nag bu reefan woote moo ci ay bu Saamel fii woote moo ci ay uple te itam lu baax lañ ko xamal yal na yàlla ak seen Tuuba ak Seex Ibra gan laa taxawal gan laa dëgëral ndaw nag ndaw la rek waaye ndaw bii de moom fu mu jublu moom rafet na lool sel na yéeg kon yal na leen yàlla jàppale li tax ngeen yaakaar ko ba jiital ko ci it ngeen jox ko ci cer yal na ngeen gisee sëñ Tuuba ak Seex Ibra mu mu yaakaar nga mu Seex Ibra la nekk fii waaw kon nag lii laa ci amoon li ma ciy sànni sante naa leen gërëm nañ leen te daawit it gune la a ah, waaye mu ngoogu seen loxo daal gémmiñ bu am boo ne man naa am ñaan waaw yaasam du moog mukk yaasam ku ko xeeb dangaa xamul kon yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla aar defal leen xiwal defal leen saadatu daaray ni barki Cheikh Ibra والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokk في دجلة مي أي جلد di bokki dëkkandoo yi di xarit yi di wëllëre eh, dañuy tënk ci ñaari aaya farañ fànc ci lu ndaw rek ngir ñu man ko jariñ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويقول الله تبارك وتعالى في مكم تنزيل أيضا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما كما قال أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اي ني بغا a فانتي fànce لو lu ngir ñu man cee jariñu mooy aaya bi ma jëkk jàng yon si yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom lañu yàlla joxoñ ci ñu roy ko waaye roy googu ñu koy roy ñun fekkuñu ko fi waaye am na ñu nu fi fekk wala am na ñu nu dégg ñu roy ko roy wu rafet woo xam ni gisaguñu ku ku ko roye noonu ku mel ni xaadimul Moustapha ak sunu mag ñu baax ñi noonu lañ doon rey yonente bi salallaahu alayhi wa sallam yonente bi salallaahu alayhi wa sallam nag nan lañ ko war a royee mooy li mu indi ñu jë ñu nangoo jàpp lépp li mu tere ñu nangu koo bàyyi te ñu nangu koo rafetal rafetal googu nag dafa am benn tomb boo xam ni moom moo la ko mën a may yonente bi salallaahu alayhi waxoon ni maa raaytu ما رأيت أسخل في الميزان من خلق العزم من لجسم تي أبجلد لجنا رفت تي بلا سم ألك يوم الخيام مو أم جيكو جرافت نانا جيكو جرافت سوكا أمي ألك نيت من نكو باي جام يالا waye mom bu suñu borom day pesé mu gëna barélé koku ay ay ay ay tuyaba lan la ko yalla taggé wayna kala jikkoom ji rafet moo taxoon suñu borom tàgg ko ngir rafet ay jikkoom di mën a muñ di mën a woote di mën a dimbali di mën a jëllalee Abdoulaye ku ñu wax Abdoulaye ibnu Mubaarak dañ ko laaj ne ko lan mooy jikko ju rafet mu ne ay jikko ju rafet dañ koy firee ci ñetti tomb mooy bi ci njëkk mooy ijtinaabul manaahi mooy li yàlla tere nga bàyyi ko lépp nee bi ci topp mooy imtisaalul awaamir nga nangoo topp ndigalal yàlla yi nee ko nee na bi ko ñetteel mooy taqawal ilaahi zahiran wa batinan nee na ñetteel bi mooy da ragal yàlla ci biir boo nee sa biir néeg sa biir kër waaye nee na boo génnee nga ragal yàlla am na ñoo xam bu ñu génnee ragal yàlla waaye bu ñu nee fu kenn gisul seenu ragal yàlla day manqué ragal yàlla googu nag pour nga man koo am dafa am yoo xam ni moo koy suuxat yi koy suuxat nag sëriñ bu mag bi am na lu ñu dénkoon ni ñett yii de bu ngeen ci àndee di ngeen mën a mucc ci seytaane te ragal yàlla dina mën a sax ci yéen nee bi ci njëkk mooy talaazumul masjid ngeen nangoo taxoo jàkka yi di nangoo julli juróom dina nangoo àndak ak mbooloo mi di julli nee na bi ci topp mooy tilaawatul quraan nga nangu di jàng al quraan di ko jàng zirran wa alaaniyatan te yaakaar ci yàlla rek nee na bi ko ñetteel nag mooy li ñu doon jàng mooy def salaatu ala nabi lu mel ni xasida yi ay salaatu ala nabi la ak tuddaay yàlla nee na yooyu daal ku ko def bi nga mën a mucc ci seytaane te nit ki bu muccee ci seytaane rek léppam baax na benn benn aay boobu bu njëkk bi tomb boobu laa ciy faram-fànce beneen ñaareelu aay bi mooy waxadaa rabbuka laa taabudu illaa yàlla bi mu la bindee mu bind la ci néew doole nga judd ci néew doole fekk ñaari way ñu yor la di la jox ngay lekk di la jox ngay naan ñu di la toppatoo ngay jàng ñu di la toppatoo ba nga réussir ci sam njàng wala nga dem ba am doole yàlla ni jaamuma waaye sa ñaari waajur yi nag na ci def loo man de nang ma jaamu bu ma bokkaale kenn waaye sa ñaari waajur yi dénk naa leen ngeen def ci istaanan wa bil walidayni ihsanan fonk leen seen ñaari wayjur ngeen def ci lu rafet mu ne ima yablughanna indaka al kibar suñu magee ahaduhuma aw kilahuma kenn ki daa mag wala sa yaay moo xam sa baay ku ci jëkk a màggat nee na muy santaane dara wala mu bëgg dara mu di la wax dara yàlla nee na bul wax ni ah bi gën a néew ci arab mooy uffin mooy a ak ëh boo ko boolee ci olof mooy ah nee na sa yaay bu mu wax nga ni ah sa baay bu mu wax nga ni ah ndax lan ëllëg maanaam ba ngay tàmbali daa jooy guddi daa leen solal ñu di la fanaanee nax daa feebar ñu di la yóbbu hôpital nga dem ba mag amati doole man ñoom ñu néew doole kon yow li nga am sa yaay ak sa baay ñoo la ci ëpp la yow ñoo la ci ëpp بريدا بريدا لمن بريدا يعين بسرا سيدك مدينة مريدا سيدك مدينة والفريدا ودبا ملينا والفريدا يمن بسرا والفريدا سيدك مدينة والفريدا يمن بسرا والفريدا كل بشر الفريدة سيد أولين هو الفريدة عيون بشر الفريدة كبك باي من جوجل تحول الفريدة عيون بشر الفريدة كبك باي من جوجل تحول الفريدة عيون بشر الفريدة باي بلد وقلت خوني مال فريدا يركض خرا مال فريدا الله يفل لك باي بلد مال فريدا يركض خرا مال فريدا كبك سري فلج وقلت خوني مال فريدا يركض خرا مال فريدا الله يفل لك باي بلد مال فريدا Farida, والفريدة والفريدة سيف سيف

أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر سين فلو كمدلا أمر لا يفلو باخو سنتي دي دين دي كنا لا شبل لا طلب سين فلو ما كجر نبوا يكشف سوا سوا ما فلو باكي فلو باكي باي فلو باكي فلو باكي فلو باكي علي في حزبي قد خاد لي امين يا رب العالمين الى العلي بالمنتقى Hallelujah. Lima بدر در رصد يسوق من له البرايا كلما يسوءني في أبد مسلما تاد من حبل توجه إلى سواه ولك ولك ولك لخيرك لخيرنا ما يفدي لك لك لك أبا الإله الحدر حدر أو خيره إلي شيئا من قدر قدر لا يتوجه سوى الحدوان لي أبدا وفزت برضوان يسوقه الوائد والقادر الوجود ربي في الوجود والختم من كل ما يفدي لسلة الخدم وجود الخدم والبقاء يحسم كل من سقاء تماثلا وقد كفاني در من تمثلا الصفات حمسا وستا قد بدت بالواد نفسية ثابتة ومن تفت تفت لدينا سمية سلبية أجدادها خد فيا فيت حاء لدينا سمية سلبية آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم

الظلم فانتصر على الذي بالناس مدر صلاة من تنبه بدوا كحدر للمجتبى الذي إن الله أبر سلام من سفى بغائي بهبر أنت سلام بشر على الذي به حداني ونصر حير الورى فتى عدوا خندبر إلى سوى خديمي ما دبر للمتبى الذي عند الله أبر للمصطفى الذي مترتي خسر مغتلة تبدو لكل من نثر قلت قلت ولا يكون عين كسعر وكل من رام من مدرتي خسر أولا رسول الله خادت للفخر وساقت النسي حلاني لسخر জানো